Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné daaru maam Omar da liggéey lépp lu ci daaru salaam mbaa mu dañ fa yónni Amadou Daam mbaa mel ni moom ci liggéey لله رب العالمين لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله mbokki julli yi mbokki gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm Mawlana Cheikh Sidi El Hadji Omar Ndaw radiyallahu anhu yàlla ñu yàlla fayal ñu ko ñu ngi nuyu waa dëkk bi jiital ci nuyoo bi ilimaan teg ci borom dëkk bi teg ci waa daairatul muxlisina suxra ñu ngi leen di nuyu ci làmmañu suñu mag suñu xarit suñu soppe Seydi Ibrahima ibnu Xalifa Muhammadul Muntaqa sayyidul mutaqa sahibul karamati al masuuf ci làmmañam la ñuy waxee ci ndigalam la ñuy waxee moo ñu jox ndigal pour ñu présenter ko gan yi mu ànd ak nga xam ne gan yu tedd lañ ñoom karim lañ waaye ibnul karim lañ ay shérif lañ ndax Mawlana Seydi El Hadji Omar Ndaw deretam ji dafa jaxasoo deretu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon ay surafaawu ñu toog fii mu jóge ko ci xadara bu sell ba so mooy daaru salaam ci déglu suñu baay xalifa Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg lool wér moo ñu wax ñu bari sandal ki jimi ànd ak moom nag lu ñuy wax nag tuuti na du teew ñu koy ki ne ci bopp bi mooy Cheikh Mouhamadul Ibrahima ibnu Khalifa Cheikh Mouhamadul Mountakha rahmatullahi alayhi yal na yàlla yokk leeram bu taas mu ci barkeem موم موي خليفه غتاي بي كي تي توپ محمد المجتبى ابن خليفه الشيخ محمد البشير حفظه الله وراه وبقاها مدة طويلة موش تابو موي بروم باخنا بو جيك مله تروس فوكي سنبي ابراهيم boo ko gis si tàntal da nga fa gis Seydi Mucca Ba waaye foo gis Seydi Mucca Ba da nga fa gis Seydi Ibrahim mu ngi ne le toog ki ci topp di Seydina Moussa ibnu Khalifa Cheikh Mouhamadul Mountakha radiyallahu taala anhu mu ngi ne le ma sol ma xam ne bu weex bi dana Seydi Ibrahima Seydi Moussa mu ngi fi ànd ak Seydi Ibrahima di xaritam di rakkam di soppeem ki ci topp. دي سيد محمد عبد الله ابن خليفة علي محمد البشير يالنا كو يالا يا كنول اك كيب امين مودون جانغ يا واخيت بو نيه بي شيخ عبد الله يالنا يالا دغرا سا باب بي alaaji Omar Dramé laa fadd foo ko sëñ Abdoulaye yàlla bu sa gémmiñ damm mukk li ngay jàng neex na lool moo doon jàng yow bi léegi nga xam ne su bi ngay jàng kenn du ànd ak sabab woykat ba dafa waxoon ne abiyaatuhu tuujisul bu tuujisul xuluubu nee na bayit yi yi day ñot di xol jëmale ko ci allahu subhanahu wa taala moo tax buñ koy jàng kenn du ànd ak sa soxla tujusimul quluubu tuwassiluha ilal xalaa dalay ñor di yóbbu la ci yàlla subhaanahu wa taala moo tax suñ koy jàng kenn du ànd ak sa soxla ki ci topp di Seydi Mouhamadou Tahir ibnu Khalifa Cheikh Mouhamadou Basir yal na fi yàgg lool te wér ak képp ku ko wax mu ngi ne toog مصر رسمة وجاكبل بينكما سيقام بليل مفينو كيوتو قد سيد محمد البصير ابن سيد محمد المكيو رحمة الله علي أنا يا الله بيس اليرم أنا تكاوم مصر بين الرسمة بي صلير جسنا ربولبي كيوتو قد سيد محمد المكيو ابن خليفة الشيخ محمد البصير مونيك نيتوك moo doon xaw sëñ Abdullah moom it yàlla yàlla dëgëral baatam bi ki ci topp di Mouhamadou Taha ibnu Khalifa Cheikh Mouhamadou Mountakha mu nga nële sol yëre brousse ba cokoñ ba téye téléphone bi ki ci topp di Seydi Mouhamadou Taha u Khalifa Cheikh Mouhamadou Bachir moo nekk nii toog ki ci topp di Seydi Mouhamadul Mansour ibnu Seydi Mouhamadul Mourtada mu ngi nuyu toog ma sol kaal gu jekk dana suy taa moo nekk na le toog yaakaar naa ñuy la sëñ bi Seydi Mouhamadul Mahali ibnu Seydi Mouhamadul Mourtada mu ngi na le ca rajo ba hmm? mu ñëw ndox Moxtaar mu ngi ne la jóge ko Nioro ak sëriñ bi moom it teew na fi mbooloo mi waa yaar ñu fi waa Léone ñu ngi fi waaw ngoog fàttali naa ko def de ñu ngi présenté suñ soxna sële aw buur këram mu ngi nulee toog soxna Yaasin Kan moom it mu ngi ànd ak sëriñ bi ak magam jum den na noonu mu ngi ñu toog ñu ngi nuyu ñëpp di siyaara ñëpp waa Daaru yi teew nañ fi Omar Cissé ak ñi ànd ak ñu ngi jiyee ko Darou Salaam di ut di sàkku commune Darou Salaam ñoom it teew nañ fi sëriñ bi nee na ne gis na leen kon sëriñ baa ngi ànd ak waa Darou fépp foo xam ne njabootu Seydi El Hadji Omar Ndao nee na mooy sëriñ bi juboo naa mbokkam yi mane naa mbokkam yi ndax soo xewlee sa mbokk yëpp ànd ak yow daan مودنا ورفوف أي جام بدلا بقول تقول أبو جكبي أقر قرم إلري نقم سيماهم في وجوهي من أثر السجود نقول سن لري نسر قر قرم إلري نقم نكيل المني دي مولا ناسر سلاج ونو ندف بين دنك والله نكيب دان واتنا ربي توفيقا لولدتنا من رسل أسماك kon sëriñ bi ànd naa mbokk mi nee na yéen waa daayatul muxlisiina suxra sëriñ bi nee gërëm na leen ci taxawaay bi ngeen ko taxawaaye fii ci dëkk bi ak ni ngeen kay jàppalee ci lépp loo xam ne ne ci bu santaane liggéey di ngeen ñëw bayal ko lépp lu mu bëgg suba ak ngoon yéen sëriñ bi nee na loolu sant na leen ci gërëm na leen ci waaye ci biir sant ko ak gërëm gi jiital na ci seen waajur yi. ndax bu dul woon seen waajur yi du ngeen tag loolu ba ngay def kon sëriñ bi nee na ñun na leen sant na képp koo xam ne sonn nga si bis bi gis na ko bëtam bi tege na ci toq na ci noppam bi yàlla dana ko faj gis nga jaar su la kenn du laaj ci jaar di la matte ju mag laam ju la te sañoo woykat bi nga ne bu xeer lii nu jaar danga jaar si biir na ngeen wét na leen wét te wóor na leen yéen a ngi toog ak Seydou Mouhamadul Mountakha nit ñu Seydou Mouhamadul ci dëggu kër noo daraja boo mën ak noo mën mel rabu laay wax dëgg rusu laay wax dëgg bu dëgg xasee ba taxaw loolu meloom la jeyuma ko damay wax li ni ci moom bu neexul ci moom it du ko wax ndax ñàkk ma fulla melaw dëkk képp ku xam xam ci melaw dëkk képp ku xam xam ku ci nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey ba mu juddoo ba léegi mi ngi jaamu yàlla foog naa ci guri yi ñekk taw ci wasifa Daaru ci la bokk ñu naan bu fa bokk lu ne la di moo ne doo moo fedde daan ci wasifa yooyu bu njëkk te ba léegi tegu ci tànkam yi kon yéen ñi nga xam ne moom la yàlla sensé léegi mu ne seen bunt ci kër Seydi Aji Omar Ndaw ngëb leen ci Seydi Aji Omar ay buntu buntu la am te alxuraan dafa ne wa atul buyutu min abwaabiha yéen nag seen buntu ci kër Seydi Aji Omar Ndaw mooy Seydi Ibrahima ngeen ko bàyyee du ngeen dugg ci moom melow sëriñ mu ci moom xam na bàyyi ba jàng julee jàng na man bokk naa moom daara kaw ay ati at at at at muy wut xam-xam nekkoon na fas caaxu di wut xam-xam nekkoon na ndar di wut xam-xam nekkoon na kaw di xam-xam xam bi xam na ko te sell na jub na sëriñ nag bu fekkee heure soo ko gisee mu fàttali ne yàlla xam ne mën na sëriñ wa yuskurullaha ida arahahu sëriñ Ibrahima boo na ko jàkk boo na ko mun la jàkk da xam ne kii doomu wul yu la da nga xam ne ci doomu léegi waaye appliqué na ndax lépp lu baax mu ci kon bi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñaanal la yàlla yàggal la lool nga yàgg taxawee di ci barkeb sa maam si laaj ma ndaw yéen nag yéen a ngi xajana te génn ku leen àdduna maanaam yéen yéen a ngi xajana. Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné. kaabe en sikala bone daaru maam omar da liggéey lépp lu xew ci daaru salaam mbaa mu génn daaru salaam dañ fa yóoni amadu daam mbaa ku mel ni moom ci